am ma jox leen sama bos maa ngi tudd Farba Diouf nekk le coordonnateur départemental de la COJER de Thiès euh, ñu ngi fi ñëw nag tey avec l' ensemble des jeunes de la coalition Benno Bokk Yaakaar bu Thiès pour soutenir suñu frère le président Mamadou Lamine Massaly bi nga xamante ne nii mooy le président de l'UNR bokk dans la coalition Benno Bokk Yaakaar. tey nag li fi am dafa nekk fait bu graaw parce que Massaly dañ ko porter plainte parce que uniquement dafa doon défendre boppam defendre njabootam defendre ay yeneen Thiessois yoo xamante ne nii seeni biens étaient exposé parce que li ñu gis mooy y a des jeunes qui se sont di wër di taal dëkk bi di yàq dëkk bi di yàq liggéeyukaayu jàmbur yi. ñooñu tey Ousmane maître Ousmane Diagne keneen ku mënti doon dafa waroon a am une position républicaine pour faiseur de trouble yooyu noonu ñu mën leen a corriger mais defu ko mu porte plainte Massaly pour défendre jeunes yooyu noonu mala manifestant yooyu noonu loolu nag ça reste li ñu ci war a war mën a euh, jàngat mooy ñooñu nga xamante ne nii ñooy ñooy def ñaawteef yooyu maître Diagne xam na leen ba war leen a mën a defendre ba war a mën a bëgg protéger seen vie donc nag ñu demandons o Thiessois ak Thiessoises yëpp ñu xam ni ñiy yàq seen i bien ñiy yàq seen i liggéeyukaay ñiy yàq seen i tranquillité maître Diagne xam na leen donc ñu demandons à tout le moon de déposer des plaintes pour que maître Diagne moomu noonu mën a wax ñan ñoo nekk derrière ces ces ces ces ces cas là fii nii à Thiès. ku gis vidéo yi xam ni Mamadou Lamine Massaly arme bi mu yor tiire wu ko braqué wu ko mu ngi koy yor di dox di dem pour le pour les intimider qu'est-ce que ñi lan lañ bëgg mu toog këram bañ a mu toog këram toog seetaan ñu attaqué ko taal këram taal ay njabootam te def nañ ko fi ay yoonu yoon mu jàll bu nekkoon loo xam ne mosul am sax ñu mën a wax taal nañ fi ay këlu responsable mhm. taal nañ fi ay ay ay bien wu jàmbur yu dul benn du ñaar léegi nit ñi dañuy toog di seetaan ñu leen di taal di rey seen doom yi sànni nañ fi ay cocktail molotov ci biir bus yi taal nit ñi ñu ñu dee calciné léegi dañu dafay toog moom di xool ñu les mêmes faits ñu koy defaat fii nii à Thiès mbala ñu koy def envers njabootam mbala ñu koy def envers ay yeneen Thiès waa yoo xam ñu nous lui encourageons que ni moom combat bi mu mënee nii nii c'est pas le combat de l'alliance pour la république ni de la coalition Benno Bokk Yaakaar sénégalais yi lay xeexal ceesuwaa yi lay xeexal parce que li muy défendre ñi mu doon repousser pour ñu daw mënoon nañoo yàqal keneen ak keneen ku dul Massaly donc ñooñu mu doon mënoon mënoon dàq du woon uniquement pour moom donc tey ñi ñi xam nañ ni des fois la police dafay am problème pour pour contenir manifestants yëpp. Mhm. s'il y a des gens qui s'organisent pour génn pour repousser ces Ah, waruñu leen war a mën a teg yenn situation yi ñu tey euh, suñu quartier yi war nañoo war a mën a am une organisation boo xamante ne nii tey ay comité de vigilance et cetera pour mën a soutenir la police ci nga xamante ne nii mooy seen liggéey parce que la sécurité même bu nekkee police bi ko yor suñu sécurité la ñun la police peut venir un on doit être on doit être prêt défendre suñu bopp xamante ne nii suñuy dëkkandoo lañ ak tous les Thiessois yi nga xamante ñoo fi nekk incha allahu rabi dinañ saisir le procureur de la République à travers une plainte pour ñu mën a identifier réellement les fauteurs de trouble là mi nga xamante ni leen maître Diagne moom moo leen di soutenir ndax xam na leen ba ba ba kii leen xam na leen kon moom dinañ ko dinañ dinañ saisir le procureur pour mu mën a identifier ñooñu ñan la. gis nga plainte bi maître Diagne def ak F24 ñoom wuy yooyu nga xam ne dañoo taxaw pour pour taal Sénégal ñun on fera face à partir d'aujourd'hui dent pour dent œil pour gatsa gatsa gi ñu woote ci lañ leen di fekk si mais gatsa gatsa googu nag ñun dañ koy def di manière républicaine ñoom tey daje nañu ñoom wuyu yi bokk ni dañuy aar ay élection élection du amu fi élection le 15 lay am ku bëgg le 15 décembre la am ku bañ le 15 décembre lay am léegi nag ñoom li ñu wax ñun à partir de demain dinañu dem ci li ñu yoon may déposer ay plainte contre Ousmane Diagne parce que Ousmane Diagne xam na ñi taal këru jàmbur yi Ousmane Diagne xam na ñi sàcc bagaasu jàmbur yi Ousmane Diagne xam na wëyu yi comme moom nee na identifié na euh, manifestant yi ba porté plainte masali ni Massaly moom moo doon intimider xale yi da doon braquer ay poste la ci ñoom kon procureur ñi doon taal dëkk bi euh, dimanche ñi nga xam ne ñoom ñoo gaañ sunu mbokk policier bi dóor ay briques fii ci Thiès ñooñu Ousmane Diagne xam na leen identifié na leen na convoqué Ousmane Diagne le plus rapidement possible mu wax ñan ak ñan la pour que yoon mën a def liggéeyam loolu ñun la ñuy demandé leneen laajuñu ko léegi nag ñoom li ñu bëgg taal Sénégal ñun dinañ taxaw lépp lu ñu man lu ñu yoon may ñu def ko parce que ay wuyu yuy taxawaalu lañ Ousmane Diagne pexeem su juboon tey fii lay taxaw ànd ak ñun parce que négocier na ba sonn pour jàppale Amadou Ba en tant que candidat négocier na dugg palais encaissé xaalisu Macky Sall veyu tabaski veyu korité ay millions yu bëri te àndut ak ñun encaissé na fi ku ne kon maître Diagne su pexeem juboon il sera parmi la les les les les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais li mu bëggoon ak li mu doon chantage moom la ñu nanguwul parce que ñun du ñu ànd ak benn responsable ci di la jox xaalis wala di la ger par conviction la ñuy àndee ak ba Benno Bokk Yaakaar donc ñu ngi ñaan procureur mu wool Ousmane Diagne le plus rapidement possible en attendant ça plainte ko def contre Ousmane Diagne pour mu wax ñu fan la wëy yu dëgg ak sàcc ak agresseurs yi. Euh, comme vous le constatez tous, des jeunes la coalition Benno Bokk Yaakaar de retrouve aujourd'hui ici devant le commissariat central pour apporter notre soutien au président Mamadou Lamoun Massali suite à, aux, aux, plaintes introduites par euh, Maître Ousmane Diagne. Et ce que nous voulons euh, dire concernant ce, ce, ce sujet, c'est d'attirer l'attention des Tchessois que ce fait-là, c'est un fait inédit. Parce que Maître Diagne dépose une plainte contre Mamadou Lamine Massali comme tentative d'assassinat par rapport à des jeunes qui étaient sur le terrain en train de manifester et de casser les biens publics et privés de chez soi. Donc ce maître Diagne qui a identifié ces jeunes-là, qui les apporte leur soutien, c'est bel et bien qui sont ces jeunes et comment ils sont organisés pour semer le bordel et le chaos dans le Sénégal, particulièrement à Thiès. Donc nous demandons aux Thiessois qui ont toujours eu des difficultés, euh, perdre leurs emplois ou perdre leurs biens, de porter plainte à l'endroit, de, de porter plainte à parce qu'il sait ces gens qui sont derrière tous ces saccages qui sont à Thiès. Mm. En nous, à notre niveau, nous les jeunes euh, de la coalition Beno Bokoyakar, nous allons nous organiser pour introduire des plaintes collectives pour que la lumière soit faite et que le procureur de la République qu'il s'autosaisisse sur ce dossier-là parce qu'à travers Maître Diagne, on pourra savoir définitivement comment ces se sont organisés pour détruire les biens des Tchessois, ouais, particulièrement ouais. Euh, nos, nos responsables politiques. Aujourd'hui, nous apportons notre soutien à, euh, au président Mamadou Lamine Massali. Je parlais avant-hier avec un ami. Il m'a dit qu'il était présent sur les lieux parce qu'il habite à côté. Il me, il me fait savoir que ça aurait été l'intervention de Mamadou Lamine Massali, les jeunes là allaient les attaquer et détruire leurs véhicules et détruire leurs biens. Donc nous lui encourageons et lui euh, faisons savoir que euh, la décision qu'il a prise d'être euh, tout le temps un bouclier pour défendre la République et la coalition euh, nous les encourageons à continuer dans ce la là Mamadou Lamine Massaly ne cesse pas lever un bon euh, pour prendre son arme et se, se euh, comment on dirait, se promener à Thiès comme ça. Il y a des qui sont là. Des jeunes ont venu l'attaquer, attaquer son domicile. Qu'est-ce que les gens veulent Qu'ils restent à rien faire Après, s'il y a mort d'homme, c'est lui. Ou bien s'il détruit son permanence, ou bien Qu'est-ce que les gens vont dire il est légitime de se défendre il, a le droit de se défendre et il s'est défendu comme la loi lui a, a, a, a permis ça s'il ne s'était pas défendu euh, qu'est-ce qui allait se passer donc mais on a vu à travers la vidéo Mamadou Lamine Massaly n'a pas utilisé mhm. l'arme il n'a pas tiré il n'a pas levé l'arme il était en train de marcher tranquillement pour les intimider donc nous demandons au procureur de revoir la situation la et de laisser Mamadou Lamine Massaly continuer mhm. en compte la plainte que les gens vont déposer concernant Maître Ousmane Diagne.